kon nañ ko may ak diglu bu baax te yàlla rek tax ku diglu ren yàlla nga diglu dewen ci barke sëriñ bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen seer di leen nuyu ci tuur sunu kilifa yi ci jataay bi Cheikh Mahamadul Bachir moom sëriñ Habibu ak sëriñ Moodu moom sëriñ Habibu ak sunu mbokk yi ñu fi wuy si yëpp di nuyu nuyu ci tuur soxna Bindu Mbàkke mi woote jataayu tey bii waaye nag di nuyu it ci tuur Tuubaa ci kanam ci tuur Sëriñ Abibu mi nga xam ne mooy jëwiñ ji ak mboolem waa Tuubaa ci kanam ñépp ñu fi teew di jottali ay kàddu xam naa damay njëkke cant gu jóge ci soxna Bindu jëm si ci mbooloo mi rawatina kilifa yi rawatina ñim àndal liggéey bi buñ noppee nag dokkee sof kon kàddu yi Tuubaa ca kanam kon soxna Bintu nee na mu ngi nuyu mboolem kilifa yi fi teew si ci jataay bii di leen sant di leen jaajëfal di wax ne gis na it te ji ngeen jox liggéey bi gis na pëstéef ji gis na bàyyi xel gi ngeen bàyyi xel bis bi waaye muy sant nag mbooleem ñu àndal liggéey bi di ci jiital kilifa yi di ci jiital soxna Safiitu Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne mag la kilifa la su ko neexoon mu woote woote nu mu bëgg woote ba toll ni mën na ne toll waaye bi mu jaayante sëñ Tuubaa dugg liggéey bi dafa wax soxna Bintu ne ko yaa ci sama bunt foo ne loo nekk ci laa nekk ànd ak moom liggéey bi kon jant bi soxna sa moom la ciy jiital ak mboolem mbokkam yi mbokk sëñ Tuubaa yëpp te ñu ànd ak moom liggéey bi rawatina ñu teew ci bis bi soxna Amine moom sëñ Murtada ñëw na fi léegi mu ngi koy sant bu baax waa kër sëñ bu kenn desut ñoom ñëpp teew nañ fi sant soxna yi mu àndal Touba ca kanam soxna Njaxatum Cheikh Abdou Lahad soxna maam Marème soxna Fat ja soxna Bindu Sarr soxna Mbaye Ngum soxna maam Awto ñoom ñëpp soxna si mi ngi leen sant bu baax di sant nag mboolem soxna yi mu àndal liggéey bi mboolem kuñ fi tudd sawtu nga mas a jël ab bolo ci soxna Bintu dem jaay ko ñëw wersu ko koo mën a doon soxna Bintu nee na mi ngi lay sant bu baax mu ngi lay gërëm bu baax mi ngi lay ñaanal bu baax ndax kat. lii mu liggéey su ko manee yéen ñi ànd ak moom yéen a ndax bi doyloo ngeen ko bi ngeen ñëwee fekk si ko ci liggéey bi doyloo ko jël ay bolok ci moom tey jii ngeen di doo a xam li ngeen ko doon weesu ñaata la mosu leen koo lijjanti mosu ko laaj loolu nag ak doyloo mënu koo weesu kon soxna bindu nee na ameel na leen ak cant ameel na leen ngërëm amee na leen ak ñaan mu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal su borom guddal seen fan may leen yokk seen i xéewal yéene ji ngeen am ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi itam ngeen def ko nangeen ko bëggee te yàlla do fayale leen njaboot gu barkeel bu leen ko lu leen ci mën a taxaw ci barkeb sëñ Tuubaa mu ngi sant ñëpp góor jigéen mag ndaw képp ku jàpp ci liggéey bi ak noo jàppe ak foo jàppe daal soxna Bindoo ngi lay sant ku jege ku sori ku dëkk ku génn dëkk bi ku mën a doon rek te nga ànd ak moom liggéey bi mi ngi lay sant képp koo xam ne itam yaa ngi ci biir tubaa ci kanam di ci liggéeyal sëñ Tuubaa ak foo ci mën koo ci mën a àndal ku ci doon sa jëriñ liggéey bi la tool benn la soxna si amee na rek cant rawatina soxna yi nga xam ne nag moom moo ne ci seen kanam di seen jëwuñ jiite leen soxna yëpp mu ngi leen sant na def nañ ko kilifa topp nañ ci ginnaawam jàppale nañ ko ci liggéey bi noppal nañ ko ci kon soxna Bintu nee na mi ngi leen ci sant bu baax a baax cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di leen cant nag koo xam ne man mii dama ciy dugal sama cant ci biir cantu soxna Bintu googu ak mboolem nun waa ko sëriñ Habibu ñu nekk ci biir liggéey bi cant gi ñu koy teg ci loxo suñu di ko seereel ne ko liggéey bii di liggéey sëñ Tuubaa bi ñu nekk muy soxna Bintu muy soxna ja muy soxna Assu muy nun ñi ci nekk di ci yëngu ñëpp bi yàlla dogalee nu tàbbi ci ñoom ñii seen ndigal moo ci bàyyi ñemeloon nañ ñu ci jàppale nañ ñu ci gunge nañ ñu ci ndax suñ nay woon yem leen ci fii tey tey ñu yem ko ci kon ñooy ñooy suñuy kilifa kon ñi ngi seereel mbooloo mi cant ko ci sant ñi ñu bokk suñuy suñu kilifa yëpp di ko teg ci loxol sëriñ Basiiru mi nga xam ne mooy jëriñu kër sëriñ Habibu yàlla dogal liggéey bi ñu koy defe fii ci ab ëttam soxna Bintu it ba mu ko tàmbalee ba tey nag jekk sëñ Basiiru gii la koy defe moom mi ngi sant sëñ Bas bu baax te di ko ñaanal di sant ak njabootam gépp ndax jàpp nañ ci bés bi jàppale nañ ko ci waaye ñun njaboot sëñ Habibu gépp ñu ngi gën sant sëñ Tuubaa di gën a fett suñu jaayante ak sëñ Tuubaa ci fas yéenee fas yéenee sax ci liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bi ñu ciy dàkk bëggu bi ci dëkk bi am ci yaakaar waaye di sant suñ kilifa yii nag nga xam ne ñoo nu ko jàppandalal tàmbale sëriñ Seexuna góor ñi jigéen ñoom ñëpp kenn ku ne Touba ci kanam def nga ko ne sa liggéeyu bopp te ndax ban ñu ci gisee ñu ci yëngutu ñëw ci wax leen ko ñoom ñëpp dañ ko rafetlu ànd cee moom waxtu wu ne ñu ngi ñu koy jox ay xalaat dañu ci soññ dañu ci gën a dëgëral kon sëriñ Bassirou ni ngi leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yàggal suñu kanam lool te may leen wér waaye ngeen ñaanal nu itam ba lëg bi liggéey bii ñu soobu te yàlla dong ma tax ak sëñ Touba ngeen ñaanal woon am ci bu ñu seytaane man mukk buñ ci gis suñu bopp buñ ci gis lu dul sëñ Tuubaa waxtu wu ngeen xamee nag dem ngeen ba gis ci loo xam ne bokkut la taxoon ngeen bàyyi lu ñu nekkee it bu leen ñu ca ñëblu na ngeen ñu ci daal di génn ci saas ndax kon ñu génn ci ndax sëñ Tuubaa dong lañ ciy wut te sëñ bi képp koy wut ak bëggam da ngay nangoo jëfe ay ndigalam te da jiitu wut ci ay ndigalam topp say kilifa kon te yéene suñu kilifa yéene nu jox ndigal yéene nu ñeme loolu yéene nu ngi yenn ànd ak moom waaye buñ geesu woon gisuñ kenn ci yéen kat duñ dem kon sant nañ leen gërëm nañ leen di leen gën a dénkaat suñu bopp bu baax a baax di ko seeral mbooloo di sant yëpp bokk yi fi teew yëpp Alaaji Mouhamadou Diop léegi la fi jóge ñu ngi koy sant di wëlda sëriñ Bassirou mi waaye di ko bëgg lu baax ku àttan sonn ñu ngi koy sant bu baax ak njabootam ne ci liggéey bi di sant kilifa yi doon sëñ Mahmoudan Bousso mii teew sëñ Bassirou Mbacké naa ñoom moom ñooy waa Touba ci kanam waaye ñi nga xam ne ñoom dañoo wuy si woote bi donte ñëpp Touba ci kanam lañ ñoom la ñuy beral ak cant ba noppi doog a dugg ci Touba ci kanam boole koog di dagg seeni ñaar téeméer fu ngeen toll di xool liggéey bi di ko say di ci wax lu baax di ci yéene lu baax di ci joxe ay xalaat yu baax yéen ñëpp amel nañ leen cant ñu ngi leen sant bu baax soxna bindoo ngi sant góor ñi sant jigéen ñi sant mag ñi sant ndaw ñi sant waa daawa ji sant dëkkandoo ji sant njabootu sëñ Basiru gi njabootu sëñ Moodu njabootu waa gis yi gépp bokk yi soxna yi doom yi taalibe yi ñëpp soxna saa ngi leen sant bu baax ndax ñëpp jàpp ci bis amee amel leen ci cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye am fu mu yam kon xol moom mënta wees sedd soxna Bintu xolam sedd na guyu sant na ñëpp di sant waa Touba ci kanam bi mu àndal liggéey bi ci wet yëpp itam ñu leen sant di leen jaajëfal kon nag ma ñëw ci kàddu Touba ca kanam kon kàddu Touba ci kanam ci tu njiitul sëriñ Habib nga xam ne mooy kilifa gi ak ñi àndal liggéey bi te jataay bii ñi fi toog di jëw ñu liggéey bi sëriñ Cheikhouna Mbacké du yooli mi sëñ Baara mi jiite yaatal gi sëñ Ebo Boussa sama wet ak ñeneen ñi ñu ko ñoom ñëpp ñu ngi fi Mame Mbaye Sylla Modou Boussa Ba Khadim Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax ñoom ñëpp ñu ngi fi te buñ fi teewee teewal nañu fi waatu Touba Ca Kanam gépp waaye waa mu Moukhaddamatoul Khidma yi ñu ngi fi doon ñoo xamante ne naka jekk liggéey bi ñoom ñoo ko ànd ndax ñoo bokk tool bi dañoo féete fee ñu féete fi waaye benn tool benn la ñu ànd ko ànd yi na ko saa su soxna yi wootee danañ ñëw ànd ko ak ñun kon ñoom ñu ngi leen sant bu baax ñu ngi ci jataay bi yeble nañ fi ay ndaw ñu ngi ci jataay bi jataay bi xat waaye kon sax dañu leen di jox kàddu waaye ñu ngi leen ci sant bu baax di sant suñu Ahmadou Ndiaye Ngewaan mi doon def waxtaan bi li taxoon soxna Bintu taamu woon ko ci day matal na ko matal na ko sëkk ndax wax dëgg yàlla wax na fi wax ju am solo joo xam ne soxna yi mu doon waxale yàlla nañ ko dégg diglu te dégg ko te jëfe ko ndax buñ ko defee seen njariñ rek lay doon kon ci tu sëriñ xay yu ak tu Touba ci kanam nag ñuy santaat soxna Bintu bu baax a baax ci pastéefam ci itteem ci ak yëgam ci fonkam Touba ca kanam soxna Bintu léppam léppam jox na ko Touba ca kanam guddeem ak bëccëm ak yëngoo dalam lépp soxna Bintu tëratu lu Touba ca kanam nun ñi mbokkal ke sañee bi bu ñëpp xam nañ ne soxna Bintu looy wax ak moom lu Touba ca daanaka du la dig lool ñëpp xam nañ ko ci moom Touba ca kanam mooy itteem ku muy jàpp daan ci Touba ca kanam la lay jàppe ku muy bàyyi ci Touba ca kanam la lay bàyyee def na ci itte def ci pësteef def ci jom def ci léppam kon soxna Bintu Touba ca kanam amee nañ la sant di sant mboolem soxna yi nga àndal liggéey bi ne ci sa ginnaaw yëpp ndax dañ ne tag tegale bu jubee ba jiitu moo jub yow mi ne nga xam ne yaay mboolem jëwuñu soxna yëpp day dox nga doxin woo xam ne soxna yi képp ku la ci way la mën na àgg fa ndax dox nga ci doxin wu rafet doxin yaatu doxin wu positif doxin wu sell ndax lii di ko jël bolok di ko jaay taw ñaar téeméer nit ñëpp toog nga man koo dajee wax ko benn bu ne taw benn loolu moom mel ne yaa ko njëkk def ñëpp dee ca ci way te gis nañu lu mënta ñàkk la ndax leewal li nga xam ne moom nga seq nit ñi dafa mënta ñàkk ndax ku ko leewalut tayit yow matul la sawaay bis pénc da nga ñëw te bu ñëwee lépp lu lën noonu moon dana leer lu nëbb woon dana feeñ kon teel koo leeral sa digg nit ñi ba mu leer nañ ñi bu ëllëgee lenn du la ca topp lu am solo la te loolu ngay def kon mboolem soxna yi ko ànd ak yi koy def yëpp itam te seeni bis weesu woon ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax waaye di la sant ci yoon woo nga wane ak pasif bii nga wane ci liggéey bi ak yitte jii nga jox liggéey bi wax dëgg Touba Kanam gépp ameel nañ la sant ameel nañ la ñaan ci turu sëñ Habibu ak ci turu mboolem waa Touba Kanam laa koy wax xëy na li ci waaw ci ak cant man lottu naa ci jottali ko ndax ni ma demee mu am na ci loolu mënu ma caag waaye ñoom ñëpp xam nañ li may wax te loolu mooy ñoom ñëpp mën nañ koo wax kenn ko ne mën naa seere ne li ngay def ci liggéey bi at mu ne saa suñ at mi jeexee buñ seetee yaay man ci liggéey bi 65 millions yi nga joxe yaakaar naa bu ñu xoolee ñi joxe bari na lu si wax si bari waaye yaa ci yaa ci jiitu yàlla na nga ci yàgg a jiitu te it ya ñi ñi ci sa ginnaaw itam na nga ne ca kanam waaye ñoom yàlla nañ jëm ndax lépp ci léggéey bi rek la jëm te lépp mooy yaatu liggéey liggéey bi sëñ Mahdi mii la ko doon jottali di ñu ngi koy sant bu baax jottali bi leer na nañ te itam dugal na ci yëfi njóobeenam yu bari yoo xam ne ni yu ko xaw a mal la waaye ak lay doon ci biir sant sëñ mbayten ñi bu baax a baax moom itam ci pëstéefam ak yaatalam liggéey bi di di di sant sëñ Ahmad Ndiaye Ngewaan nag moom ñu ngi koy beralaat ak cant ndax day koo xam ne wax dëgg yàlla waxtaan wi mu fi def dafa jawoon rek dajale mbooloo mi dajale soxna yi képp ne ko kaay defal na waxtaan ci lu Tuubaa ci kanam sax wax ji mat na rafet na jub na tegu na ci aw yoon te lépp dëgg la te it delluwaat ci waxi sëñ Tuubaa sëñ yi daana wax ne mag na am na ci mag ñi ko daa ko naa wax sëñ Mbàkke Maane mag la woon lool mag magi sëñ Manumbee woon sëñ Mbàkke Maane moom ko yàgg sëriñ bi la daane wax ne man di taalibe yi li ñuy nettali naan sëñ bee ko wax ko mu fu ñu ko déggee ndax man de musuma dégg ci sëñ tubaa lu dul lu may tax a jàq sëñ bi su masaa woote ab yow yow di wax bu doppee la des ci bëccëg ba kenn kuñ jox aw ñam doo ko lekk doo añ ndax jàq defe na ñëpp salaw lañ jëm nee na bu masaa woote ngoon it bu bu guddee kenn du nelaw kenn du yam ndax da ngay defee ne yow faatoo la tey dem sa yow ndax xuppe ak tegee ci aw yoon daan ne léegi nag yombal nañu àjjana lu wax ne sëñ bi nee na àjjana ne loolu moom wax sëñ Tuubaa jama daan dégg sëñ yi nee na loolu suñu ñi nekkoon sëñ bi ci dégg kenn mu di la nettali ay xisa yoo xam ne danaan la sëñ bi bi yombalal àjjana bi daana wax ne képp ku la yombalal àjjana rek moo la xañ sëñ Tuubaa daana wax ne ku la yombalal àjjana rek moo la xañ kon sëñ Ahmadou Ndiaye fii nga fii nii ngay doxee rek noonu la bu la ci kenn soppi ndax dëgg moom wét ci ak wét bi ko ñooyam nekk ca rek te yàlla tax waaye bul bul bul xool kum neex bul xool kum naqar waxal lay dëgg rek te yàlla tax te loolu ku dem ci mbindum sëñ Tuubaa moom nga cay fekk moo dëppoog lam daan wax moo dëppoog nam yare mag ñi ndax dama leen di sëñ bi ku ko bëgg a xam xoolal rek ay ak njabootu boppam muy ay doom ak mag ñi mu ci gis kenn ko teg tànkam fu du ci siraatal mustaqim kon ku la bëgg a woo ci feneen tànk fu du siraatal loolu kon mooy lii nga fi wax mooy lépp delluwaat sëñ bi lépp ne nii bu fekkoon ni ma koy waxee bu toon Tuubaa la ñuy defee ab dëkk ku fa dëkk ba nga fexe ba la mënta ñàkk ci dëkk ba nga amal ko sa bopp te yàlla man loo nanu ko doon taal bi rawatina nag dëkku sëñ Tuubaa bii nga xam ne mooy lim gënoon a bëgg te lu ci waaye def tey su ëllëgee nga mën koo jariñoo te liñ ciy def ci saahir di njariñul saahir loo xam ne fii ñu toog képp lamp bii ñu tiim lamp bii ma joxañ Tuubaa ci kanam ko fi def te ci seen ñaar téeméer ngeen di ngeen di ngeen di joxe ci lañ ko jënd kon li doy na firnde ci ne Tuubaa ci kanam ñëpp ngi ciy jariñu kon moom saahir si rek ñu ngi koy jariñoo rawatina nag baatin bi nga xam ne liñ ciy def fayub sëñ Tuubaa lañ ci yaakaar ëllëg kon képp koo xam ne nekkoo ci woon fexe cee nekk ku ci nekkoon fexeel koo xam koo am ba ci sa wajur yëf yi ne ba sàq yi ne ci àddina foo koo xam sa mbokk nga fexe ba di ko ca defaaleel sa kem kàttan koo mën a soññi nga soññi ko ba mbokk ci ndax da ngay wax ne kat man layu ñàkk cee bokk mënuma koo xam ndax kat li ma xam mooy dañuy dajal xaalis bi waaye gisuñu fi ñu ko def wala def nañ ko fi waaye amuñ njariñ waaye kat dajale nañ ko def nañ ko fa am njariñ te yaakaar ci fay sëñ Tuubaa ëllëg te nga bëggee sëñ Tuubaa ñoo dëkk bi ñoonal te mënoo jël sa ñaar téeméer loolu xam lu mu doon kon nag ko yaakaar sëñ Tuubaa ñu ngi lay gën a tàllal loxo di la gën a soññi di la gën a yaakaar ci nga tàbb ci Tuubaa ca kanam tàbbal ci loo am ak koo am ba liñ bëgg ci dëkku sëñ Tuubaa ñu mën a ko suñ bopp ndax sëñ bi kat ba muy laaj ñaar fukk juróom-ñett la mu waxoon rek ku la mënal sañal la te yàlla na ko la war a sañal te te te manal man dama bëgg ngeen manal seen bopp ma ëllëg ku la man a sañal la noonu nag ba ko waxee woon nag yëmu ca dana yëpp ko liggéey bi ak noo àndee moom liggéey bi jëwriñ yëpp mi ngi leen sant bu ko mënoon kenn ku nekk day tudd sawtu jaay sawtu sant la waaye nag xëy na jataay bi xat na waaye niñ ko rappelé képp ku mu tuddoo sant na la ñañ tudd itam ñañ àndal ba ñu mën a joxe lool yi ñu joxe ñoom ñëpp sant nañ leen yàlla na yàlla guddal fan yi yokk xéewal yi te liggéey bi yal nañu sëñ Tuubaa nangul yal nañu ko sëñ Tuubaa nangul jëf ji sëñ Tuubaa nangul rek moo am solo yàlla na nu sëñ Tuubaa nangu sëñ bi nag moom la mu daan wax rek du nax kenn waaye kenn du ko nax woon kenn ku nekk loo jox dama <laughs> wajal ilaahi maskani tubaaba mislas mi abijaay xayri man naba yéen a seetaan seen télévision Touba Vision nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul